di dugg suñuy suuf di jël bu suñuy doom jógee ñu jël tëj doyatu leen ñu dugg ci géej gi lii nga xam ne fii lañ ko fekk suñuy weejur di ko défendre nekk fi di ci liggéey ba seeni sët di fi liggéey nit ñëw ne da ci am ay baay tous les bails ont ba Baye existé tul fii même en 91 le président Abdou Diouf avait fait un décret sur les domaines traditionnels nit ñi xam nañ li am nag moom mooy boo yëpp annulé nañ ko fii dara du fi tegu te suñu doom jii nga xamee ne téye nañ ko nañ ko bàyyi nag parce que kii wax na ko léegi dëkk bi calme lañ bëgg jàmm lañ bëgg ñu ngi ci oh le président de la république parce que moo fi nekk ba léegi ñëpp taxaw nañ. pour defandre li nga xam ne moom mooy suñu moomeel muy littoral bi nga xam ne fii la suñu njaboot nekk di liggéey.